Diarra ñu ngi leen nuyu. waaw maa ngi sant Diarra Faye. alors lan ñuy mën a wax ci événement yi nga xam ne am na ci dernier jour yi fii ci Ziguinchor. ah événement yi moom ñun ñoo ko gisandoo ñun ñëpp ñun ñëpp xam nañ ni mu demee xam nañ ne gars yi dañaa tooñ Ousmane Sonko fekk ko biir dëkkam fekk ko biir kojam fu mu màggee yoroo fa ñu ne dañ ko fay ñëw génne te loolu mënul nekk parce que ñun ñëpp ay doomu Ziguinchor lañu te Ousmane Ousmane suñu deret la ñoo bokk ndey bokk baay fii la màggee si koñ bi ñun ñëpp xamante nañu ñun ñëpp fii lañ juddoo màggee fii yoroo fi Ousmane Sonko moom lu leen di wax rek comme sama xarit nu mu ko waxee xanaa ay lance roquette la ñuy dóor ak ay chars de combat pour yóbbu du bu sa bougé fii. am ngeen confirmation que ne dañoo bëggoon jël si Ousmane Sonko. am nañ confirmation d'ailleurs gars yi jël nañu ambulance sax ambulance la payé fii nii yéeg si biir ambulance bi ay ay agent bi ñoo feesoon ñëw ñu ñoo leen ibili yoon bi pour ñu dugg. ñu dugg bu ñu duggee lan moo fa xew. duñ dañ dañ dugg rek génn di bu ñu eggee fële dañuy ibbi for yi di tiré lacrymogène maire yi pour ñëpp tasaaroo pour ñu mun dugg si biir kër gi mooy loolu d'ailleurs booy bi ñoo ne ñoo jàppale woon sax si loolu noonu ñu ngi si gërëm di leen sant parce que fa nekkaloon tey lambaay ñëw yóbbu nañ ko mu yàgg. ndax rek ñoo xeex bi dafa am ñoo xam dañoo jóge ci leen gox ñëw. Casamance bi yëpp a dajaloo ñun ñëpp ñu ngi buntu kër Ousmane Sonko di fa añee di fa reere di fa foofu lañ koy defee jusqu'à nouvelle heure ba Ousmane Sonko gars yi may ko jàmm tànn. d'accord bu ñu eh, nga xam ne yaa fi dëkk lan lañ ci mën a wax. non gars <laughs> wax esprit yi bokkul gars yi dañuy wax lu neex mais ñun ñuy dëkk fi xam révélé yi yàgg dund ak moom yàgg dis lu parce que ñun depuis depuis lépp fii la ñu fekk ba am laa waat bu muy arrêté rébellion fii la ñu fekk lépp ñun dunduñu la dund nañ lépp gis nañu yàgg nañ gis ay lance roquette di jug yàgg nañ dégg ay balu fetal yàgg nañ gis ay char de combat gis nañ fi ay nit yu dee d'ailleurs man am naa si son tonse boo xamante ne si bu jaar blessé ay rebelle dañuy fen amul wax bee rek ñun ñooy rébellé ñun Casamance ñu ngi nii ñun ñooy projet Ousmane Sonko rebelle yi ñun ñooy rebelle yi ñii ay rebelle la ñu ñëpp ñun ñëpp ay rebelle ñu Sénégal Casamance yëpp rebelle la kon rebelle ñun la amul benn rebelle bu fi ñëw amul kenn ku fi yor arme policiers yi ñoom ñoo yor arme di tirer dafa ñun suñuy xeer la ñu yor taxaw di leen xaar de buntu kër Ousmane Sonko lañ leen di taxaw di leen xaar bu soobee yàlla dañu andi seen ay oto jaar suñu kaw ñu doog a di jël Sonko. d'accord ñi jot a blessé ndax am ngeen seen yi daw rek ku nekk day ñëw wax waxama ah. ku nekk day ñëw andi xam nga ne la non nii la fa demee mooy loolu mais gars yi docteur Ousmane Sonko yi ñëw nañu. ñëw nañu ñëw nañu créé nañu seen tente fële avance gale Ousmane Sonko blessé yëpp ñu ngi leen di jël en charge waaw sant yàlla quoi parce que ñun ku ku blessé sax ku ñu tiré bal suñu la yóbbu dañ leen a la foofu noonu. d'ailleurs man yóbbu naa sama benn copain ñu ñëw taxawoon di seen xel ñu door ko bal si tànk. bal la loolu bal fetal la bal fetal kay. balu balu jéemi jéemi yi nekk fii nii sona ñoo leen door bal si pooj léegi ana moom moom après foofu lañ koy yóbbu ñun ñu continuer dem sandi xeer mais ba léegi xaw ma si lu nekk nee na ñu woon mi ngi hôpital La Paix nee nañ mi ngi régional mais mooy loolu ñu ngi déglu ba léegi am na suñu copain ñu jàpp police tamit mooy loolu gars yi am na ñu jot a bàyyi am na ñu jotul bàyyi ñeneen ñi mooy loolu d'ailleurs rek am na bool bu ñu yobu yóbbu léegi foofu noonu police pour ñoom. ba suba. Mhm. gars yi dañ ñëwoon lu leen ñooñu. ah ñu neñ mooy loolu ñu ne ñun ay terroriste lañu parce que dañuy guerre dañuy grève guerruñu sax ñun guerruñu parce que ñun suñu droit la ñuy raak quoi suñu avenir la ñuy defar sànq maa lay wax ma la man étudiant la étudiant nga da nga am bac am naa bac maay Assane Seck d'accord tax nga bàyyi sa jàng ñëw ci xeex bi bàyyi ma sama ñëw si xeex bi de du bàyyi jàng de parce que Ousmane Sonko ñun waxuñu ñu bàyyi jàng dafa ne suñu avenir la bëgg a defar kon ñun jàng bi dafa bokk suñu avenir dëgg la wala dëgg waaw mais ñun bàyyiwuñu jàng bi de dañ ñëw taxaw fii pour protéger ko moom moo ñu gënal suñu jàng ñun. d'accord li ngeen fi naka taxaw ba kañ. fii yala yàlla baax na rek. Hmm. ba jour bu muy am jàmm moom. ba message booy lancé jeunes yi lan lay doon d'autant plus que démb Ousmane Sonko wax na. non jeunes yi moom ma dara lu ma leen lancé mooy xam nga lan ñu ñëpp génn amul pa amul mère amul yaay Ousmane Sonko bés bu mu ñuy rëcc mooy ñun dee nañu bés bu mu ñuy rëcc dañuy ñun ñëpp surtout ñun waa Ziguinchor Macky Sall taaw na fii soo leen bëggee Casamance ma dugal leen ma dugal ko Sénégal da ngeen di ma votal mooy kon ñu respecté wuñu suñu la ko taxaw wax suñu stade bu gën mag man moom la lancé jeunes yi ñëpp dañu génn amul jeune Dakar amul ñun ñëpp benn ñu quoi ñu soo gisee waa Casamance ñuy tooñ gars yi nii nii gars ñoo ñuy leen tooñ de moo tax ñu leen tuddee surwa mooy loolu mais amul benn problème. mais mais bi ñuy wax naan yéen nitu fitna ngeen da ngeen di yee fitna appel à l'insurrection ak yooyu loolu loo ci tontu. <laughs> loolu loolu da nga bëgg si kanam noonu ngay def changer régime bu fi nekk régime boo xam ne de mille neuf cent soixante ba léegi mi ngi fii ñun dañ koy jàng dañu koy jàngal droit ñun ñu ñu koy appliquer loolu di ñu xamal ne régime bi mooy daw depuis booba léegi loolu la ñu bëgg a changer ñun gëm nañ ne Ousmane moo ñu ko mën a changer même Ousmane su ko changé wul am na ñeneen ñu nekk si Pastef gëm nañ ñun loolu rek la ñu am pour wax gaay nañu may jaamu. voilà ñu ngi lay nuyu. Ah, yow lan nga doon fii nga taxaw. man dama fi nekk sécurité. d'accord ñu ne yaay capitaine. waaw ah. lan ah, rek Ousmane moom ka dañ te tamit dañu bëgg tamit mu doon tamit si njiité réew que lii moo koy ko supporté. événement yi jot am euh, ba si nan ah événement yi jot am noo ko jàngate. événement yi moo koy dara baaxul si moo rek. ñu dugg ci gaay te ñun loolu loolu tamit loolu tamit affaire di sécuriser gaay loolu tamit affaire di sécuriser gaay ñaata nga am ah man maa yor sama 19 ans léegi ah, say waajur ak yow nan lañ gisee nga ñëw bokk ci comité de veille bi non man man bu may jógee sama kër moom tàggoo bala may fa sama yaay fa tàggoo naa la bala may ñëw bi leen tàggoo amoo jafe-jafe fu ñu bàyyi non nañ ci waawoon sax mais man nag man nag maa fasal sama bopp maa fasal sama bopp parce que lii moo koy lii pour ñëpp la pour ñëpp la xale yi ak mag yëpp buñ naar taw suñ kër dañuy génn bu boobaa bu boobaa kenn du fi nekk te bu boobaa tamit après bu kenn nekkul fi nii après dara dara bu ci xewee moo koy nañ sonn nañ sonn moo koy mais ni ngay nekkee ci mbedd bi déjà tëddu leen ci lal est-ce que di ngeen nelaw ak yooyu non ñu jot a nelaw ñu jot a nelaw jot na fi lañu dee chaque jour fi lañu dee fanaan doon li ay perturbation ci sa wàllu wér gu yaram boobu ak léegi ne la woo est ce que amoon dara loo xam ne yaa ngi koy sentir non non sant moom dara sama sant moom sant yàlla voilà euh, léegi yaa ngi fi man de maa ngi fi ba bañ façon bu jeex de maa ngi fi ba bañ façon benn yoon kese laa lem suñu kër te boobu à dix-sept mars sa ay heure la te bu boobaa ba léegi tey bu ñuy wax naan ay ndaw yu violent da ngeen di xeex da ngeen di lakk ay pono ak yooyu ñiy wax loolu loo leen di tontu. non ñun ah nangu ñu ne loolu loolu parce que loolu moo ko loolu suñu déwaa la suñu déwaa la ñu nangu loolu moo ko dañ koy nangu. ban ban message ngay lancer jeunes yi instant bi ci waa Ziguinchor. waa Ziguinchor moo rek remercier leen rek loolu kese laa ci Sonko. non dewal jot moo déglu sama sama parce que. Ah, parce que parce que maa ci gar bi loolu tax moo jot en plus tam sama téléphone andi ko sa téléphone fay laa ko bàyyi kër ga ba léegi téléphone. merci beaucoup. Ah, ñu nuyu. waaw ñu leen di fay. voilà de veille bi nga bokk. waaw waaw ñun ñooy surveiller ñooy barricade yoon ñooy gérer dugub bi ak ak képp koo xam ne day suspect rek ñun ñooy jéem a xam yow yaay kan ak loo fi wut si daal. ñu jox ñu gis ne dugg beeg génn bi dafa metti ba ci journaliste sax euh, kuy dugg kuy génn rek di ngeen ko laaj lu ko fi àndeek yooyu lan moo ko waral. a ah, loolu sécurité bi moo ko waral parce que jamono bi si gouvernement bu ñu nekk ni da dem ba tiit ndax fit doo ko amati gars yi bëri nañu pexe te lijjanteetuñu dara lépp lu ñu mën a def pour am lu ñu bëgg rek ñoom dañ koy def moo tax tey ñun ñu pare si initiative yëpp. fu ñu fëlee rek ñun ñu leen fay xaar lu ñu pare pare nañ ko te suñu leader moom góoma nañ ko mën a laal ndaxte balaa ñu koy laal moom nañu jàll si cadavre yi bëre. d'accord mais est-ce que yéen yéen a habilité pour gérer sécurité Ousmane Sonko. non mënuñu wax ni ñun ñoo habilité mais instant yii nii ñun ñoo génn ñun ñoo pare te ñu ñoo jël responsabilité bi fois buñ si am rek man gëm naa ni loolu dinañu tax. dina tax ba kenn du fi mën a dugg parce que déjà suñu foi moo tax gars yi mënuñu récupérer prise yi ba léegi déjà suñu foi moo ñu téye fii ba léegi kon gëw ma ni gars yi daal dinañu mën a récupérer loolu moom je pense pas que dina mën a nekk. d'accord ba déglu nga discours Ousmane Sonko noo ko jàngatee. oui d'ailleurs si terrain bi fii fu ñu nekk nii sax laa ko dégluwee lu mu wax yëpp ñun ànd nañ si lu mu parce que ñun projet bi la ñu topp quoi projet Sonko la ñu topp tey buñ ñu fi taxawee du moom kese moo tax ñu ñëw fii. suñu rak yi tax nañu ñu ñëw suñu mag yi suñu famille surtout ñun suñu avenir ak lu ñu bëgg dëkk bi mel loolu moo ñu indi fii mais quant à Ousmane Sonko lu mu wax moom la plupart dëgg lay doon ñoom xam nañu loolu sa parce que à chaque fois il s'attaque pas il leur dit la vérité dëgg rek la leen di wax dëgg boobu moo leen di métti moo tax ñuy bëgg a njuuj njaaj dëkk bi corruption bi moo fi war a deñ te ñoom corruption bi ñoom bëgguñu mu deñ fi parce que dafa demee bor ñoom ñoo si bénéficié wu benn groupe bu ndaw mel ni ay franc loolu dañ si sonn comité de veille bi nan ngeen koy euh, liggéeyee ñi dañuy ñëw dem wala lu ngeen di lekk lu ngeen di naan ak sa ça dépend rek ça dépend si jour bi bu fekkee nit ñi xaw nañu santir hostilité wala danger moom dañuy gën a bëri mais bu apaiser moom parfois mu xaw a wéet tuuti mais déjà ba léegi gàncax yi fii ah, bu wéetee rek nit yaa ngi nelaw mais ñu ngi si barrage yi pare nañu pour lépp instant yi moom lépp lu ñëw pare nañu pour accueillir ko quoi. yéen a ngi fi ba kañ. ñu ngi fii ba jusqu'à nouvel ordre rek. tant que suñu xel moom dalul ñu ngi fii. faa état dalal ñu suñu xeer garantir Ousmane sécurité garantir Ousmane Sonko sécurité mu leer ñu ni duñ fi ñëw ñu soog a dem sinon ñoom seen wax sax gawma sax ñun ñu bàyyi ko xel. parce que yàgg nañu wax di ko teegi. alors ñi nga xam ne jot nañu blessé ak yooyu ci affrontement yi est-ce que am ngeen seen ay nouvelles. non bon doo am ay nouvelles ah parce que fii la plupart ay rumeur ngay dégg gars yi blessé nañu joxe nañu seen wàll ñibbi nañu xam nga ñu leen masta mastaw mais. kenn mënu si dara ñun daal ñu ngi fi blessé yi moom bu ñu blessé rek mooy loolu ok.